bul fàtte abonné bul fàtte bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa sallama taslima eh, su ma ne kàddu yi ñi ko gën a ko gën moom mooy ñi nga xam ni ñi nga xam ni seen ngëm ci science rek la yem ñi nga xam ni gëmuñu la vie de demain après la mort ñoo ko gën a moom waaye teewul ñi ànd ak ñoom ci seenu doxalin ak li ñuy nekk à cent pour cent itam am nañ ci wàll et xam nga diggoon naa leen ni xam ngeen ni diggoon naa leen ni lay sal birru bi nga xam ne ku tedd ki moo ko def

bu ñu delloo ci alquranul karim ci en araf ci aaya cent vingt-trois ci diggante firawn ak Muusa njabootam ci li firawna doon wax ni dinaa dagg seeni loxo ak seeni tànk te dinaa leen di terroriser yéen ñëpp dafa mel ni jamono ji ñi nga xamante ni bii ñoo yore pouvoir yi dafa mel ni ñoom ci beneen façon lañ koy defee mentalement waaw nga xam ni defuñu ko physiquement waaye ñi ngi koy def mentalement loolu itam ma bëgg rek euh, ñu bàyyi ci xel ñun waa Sénégal rawante nag euh, suñu état Eh, ndem suñu njiitul état dafay ko xellu ba noppi di aji gëm eh, moom bu dee man ci li ma séq ak moom laay waxe bu dee man a man dama koy ñaanal ci ku tedd ki rek eh, ngir li nga xam ni mënta ñàkk ci état ak moroomu état am ak chef d'état ak moroomu chef d'état am moom mu ci gën a settantal bu baax aw doxinam la joge ci kaw di wàcc si fii mu ci xool rek li nga xamante ni bi ñun moo gën ci ñun waaw li nga xamante bi gënul ci ñun rek ci domaine yépp li nga xam ne gënul ci ñun mu leen koy bàyyee moom loolu laa koy ñaanal ci ku tedd ki ndax it nag sama diggante moom a tax fi toll ni bari na loo xamante bi dama koy bëgg di wax euh, waaye dama ko ci bàyyi xel ndax damay bañ leen loo xam day xajamal liggéeyam wala yu demee noonu waaye du nag ndem guide la ndem leader la ndem révolutionnaire la boo xamante ne bi dafa entamer une révolution pacifique waaw et durable waaw ndax man bu ma fi nekkul woon ni bu ma fi nekkatul woon ni révolution ba day am ñu koy continuer parce que dëgg la waaw révolution pacifique la nag bu concerne domaine yëpp waaye fi ñu dafa am fu jamono toll foo xamante ne bii dañoo war a libérer nit ñi mentalement foofu la jamono toll waaw dañ leen war a libérer it physiquement wax naa léegi aaya ba ca Araf la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum ji nga xamante ni bii moom la Firawna waxoon waa kër Moussa e, physiquement moom la ko doon defe waaw ak bu góor juddoo mu la bu jigéen juddoo ñu bàyyi mu dund looloo waraloon histoire Moussa demee na mu deme ci jamono waaye fi ñu toll nag le monde actuel mentalement la koy defee waaw mentalement la dagg loxo yi nit ñi ak tànki nit ñi waaw mooy doo def li nga war a def ci say loxo doo jëm fi nga war a jëm ci say tànk doo dox li nga war a dox ci say tànk loolu nag mentalement fi ñu toll la ñu koy defee loolu ñun. bunu ci bokk ñun Sénégal bu bokk ci loolu waaw ñuy ñaan président Macky rek moom muy settantal loolu bu baax a baax waaw donte état yi dañuy solidaire ak seeni façon itam ndax itam laïcité bi nga xam ne moo fi xew loolu mooy waral état di am benn réflexion boo xamante ne bii da koy teg ci stratégie ak programme bu précis boo xamante ne bii euh, ay agents yépp dañu koy respecté loolu moo tax situation bii demee ni muy dem nii waaye fii moom lu yërmande ji gën a mën a yaatu rek waaw yërmande yi ko tedd ki ndem tas na ci ñëpp tas na ci état bi tas na ci ñëpp luñ ci mën a jël rek nañ ko jël rek baaxee ko peuple bi waaw loolu daal bu ñu ko defee rek moom waaw dëgg la am na ñu muy metti ci ñoom hmm? waaye bu nu jëlee yërmande yi ko tedd ki fu mu fu mu ko def rek ñu jëm ci awut dajale ko bu ko defee rek nit ñi jariñoo ko bu ko defee loolu nañ yaatal yërmande ji rek tey dinaa fàttali bayit ba nag xadd fakk kabala xadd ba sa fadd la fa zurru wala wana fu jaay jooju moo xoon asalaamaaleykum wa wa barakaatu. bul fàtte abonné bul